ak Cheikh Mahmoud Moustapha njëkk a si Serigne Touba ba mu koy woote ñëpp jàpp nañu lu mënta nekk la waaye yitteem ak procès bu ak ko bañ mën a tàmbali bi muy toj carrière ba ngir àggale jumaay Serigne Touba yi booba jamono yu jafe la woon ndax daf fekk crise yu door a jeex mm-hmm. waaye doogug taal bi Serigne Touba topp ci ginnaawam dama xam ne Serigne Touba li mu dara mën a koo am moo tax mu liggéey ko ba jumaa ji àgg lépp mu inigéré ko ci nekkam ginnaawam itam Cheikh Abdoul Ahad moo njëkk a tudd ci làmmiñam ne dana woote milliard ba mu koy wax nit ñi dañoo jàppoon ne lu mënti nekk la mais sëriñ bi dafa xaw milliard wala dafa xaw fi jawoon toll waaye la nga waxoon ci waxam waxtaan mu rek mbay mu nangu xol yi nangu ko gën a te xol yi nangu nañ Serigne Touba te duñu ko daatal ginnaaw mu si Abdou Khadre Mbacké ñëw yàggu fi Serigne Saliou Mbacké moom itam yàlla def na liggéey bii ngeen ñëw ngir fas ko def ci dëkk bi muy ci wàllu assainissement bi Serigne Saliou Mbacké moo njëkk a génne ci alali boppam wóotewu ko woon moo tax war a xamul ko. def assainissement ci ci biir bi. loolu kon mooy li ci jëkk am ginnaaw yu ci toppaat loolu ci am waaye Serigne Saliou moo njëkk a génne ci alal def ci lu mat 600 millions ci jamono loolu yàgg na def ko ci assainissement ngir xam ne Touba wóoru Cheikh ak kenn ginnaaw mi itam Cheikh Mawal Loïs Baara Mbacke ñëw. ba mu ñëwee itam ñu defaraat assainissement bi yokk ko ba penku armée bi ak kër doomu Sëriñ Tuubaa yi ba ak bi mu ñëwee itam 2012 yàlla def mbënd mu métti am ci dëkk bi mu wooloo ba ma ñëw mu xamal ma ne damaa bëgg a tàmbali assainissement ci dëkk bi daa gis saa dëkk bi ndox mi bari na lool. mbedd yi kenn mënu fa jaar ne nag damaa fas yéene yëkkati un milliard def ko ci assainissement tàmbaloo ko ba yàlla defee mu xalaat ko yëkkati ko war ko ci def bi ko ki jiite réew mi de président Macky Sall ci la jël fukki milliard tàmbalee ko assainissement bi ñu njëkkoon def ci liggéey kon loolu mooy liggéey bi di fi di fi weesu kon yéen bu ngeen jugaatee ngir xam ne liggéeyee Serigne Touba dëkku Serigne Touba bi taalibe Serigne Touba yi ñoo ci war a jiitu ñëpp ndax loolu mooy bëgg-bëggu Serigne Touba loolu képp ku am yitte wala nga am posture wala am taxawaay bu war na leen cee bu baax a baax te jaayante yi ngeen def itam dégg naa ci wax ñi ay kàddu yoo xam ne dugg na ma lool ndax ñu ko suñu joom Serigne Abdoulaye Mbacké waxee Serigne Touba. ki joxe ak dërëm ak ki joxe milliard ci posture ba rek la ñoo yem ci moom Serigne Saliou Mbacké daan wax ne addiye moo ko doom mooy xeebu ko ci dara posture boo ko joxe ca rajo kon ña tàmbali woon di joxe ñaar téeméer ba liggéey ak suivi cant gi ci ñoom la ko tàmbalee kon laa yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qaatala ulaa'ika a'zamu darajatan mina llaziina anfaqu min ba'du waxtaan solo waaye nag wa kullan wa'ada al-husnaa ñoom bu ñu ñoom mujjee ñëw te jëf-jëf bi mat it tàbbi ci biir ñaari leen war ñoom rek sëriñ rek buñ limee wax ne diw diw fa kana fa ne nga xam nga ni kër yi mag yu baaxoo rek buñ gisul borom daal di rek ne ko daa mel ni ñax mi mu ne karakal la ñu lim ay tur sëñ bi nee na ñoom ñetti woyofal yi ñoo ma gën a itteel borom ñaar dërëm juróom yooyu ñu ngi bi ñoo ma itteel ndax possible kese la itteel kon loolu xam ne ña ña am kàttu mu a jëf ëpp na possible ñi néew alal te mën kon ñëpp la ñu war a sant dañ sant ñi joxe ñaar joxe ñaar téeméer te seen possible ak seen borom waaye ñoo joxe lu bari itam te am yitte ne procédure bi tam ñu sant kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm te xam ne ku ci dugal jëfam nga xam ne Serigne Touba la ko jëfal seere si Serigne Touba bu ko kenn xamutoon ba Serigne Touba xam koy doy na si seere boo xool na Serigne Massamba lu ne ko Massamba mu ne ko Mbacke mu ne ko na xam ne ak Dame Sall Dame Sall mooy dencukaay mu ne ko kon dem Mbacke ñu fas yéene doone laaj loolu moo la ko loolu de képp koo xam ne def nga ko dana la ko dencal ba fa nga xam ne kenn mënu fa amul diw ne rek si liw gaa yi kon liggéey Sëriñ Tuubaa nañ xam ne mooy suñu moo war a doon suñu yitte ndax moom ji te xam ne kon daayira bii nii waa kër Sëriñ Tuubaa def ak bokk yi rafet nañ ko bu baax ndax Cheikh Abdoulaye daa wax ne ku ñu jox addiya te doo joxe addiya yaa ngi mel ne wut sa wax ak yow gaanu ma ku foofu ay yéreem ba mu njëkk mu denc nga denc ba gaar fees boo yaakaaree ne am nga yére muy suuf waajtaay jotee ko assi laaj waaj si biir gaar kilifa bu ñu jox addiya te bu jox addiya noonu kon yéen da leen dimbale. sëriñ am sutum Daaru Muxti maam Thierno dafa nekk ci kër Cheikh Abdoul Ahad ak yeneen kilifa am taalibe bu ko koo xam ak taalibe bi kilifa gi des yëkkati ñaar téeméer jox ko dem siyaare génnaat kooku nag sëriñ am sama de damaa amul jaaxle maa ngi damaa xamul taalibe yi dañoo amatul possible wala dañuy gis mu ne ko lu mu ne kii de nee na mënta yaakaar adduna ak àllaaxira te addiyam toon weesu ñaar téeméer te daayira bi mu mën di de wóor na ma ñàkk na ci lu ëpp ñaari junni ndax nag joxe na paas te daan tëgg lu kon loolu neexatu fi si am na ko déedéet tey la bi ëpp ko séer li ñuy joxe Sëñ Tuubaa ñu joxe képp koo xam ne ñu ko jox rek ngir Sëñ ko jàllale ci moom ñu ñu ko jaar ci yow képp koo xam ne ñi ngi la ko jox rek te jàllale woo ko ñu jéggale fi yóbbu ko directement si kon seen liggéey bi la toll kon na seen xel bu baax a baax te ngeen góorgóorlu ci baax a baax nag xam ne gëm naa ne Sëriñ Tuubaa ñàkk na ko ndax li tax mu ne ko li yàqoon yenn daayira yëpp yàlla musal leen kon nag yàlla na ci gën a musal te Sëriñ Tuubaa dimbale leen gàttandu leen ba fa ngeen bëgg jëm. ci liggéey Sëriñ Tuubaa yi ci dëkk bii nga xam ne Sëriñ Tuubaa dëkk bi rek a mu ñoroon fu mu mas a nekk ci géej di ngeen Cheikh Abdoulaye Mbacké wax na ko ci waxtaanoo bi la mu ba ko ñeenteel ko ñor dëkk bi kon nag képp koo xam ne jur nga ngir liggéey Sëriñ Tuubaa ci dëkk bi war ngaa daloon xel ci xam ne Sëñ Tuubaa dana la ca gertu te Sëñ ko nax waaye lu ko waay jëfal itam pay ga da nga ko gis ci la Cheikh Ibrahima Fall daa wax te fii la ko waxee woon sax dara ma nag ba ko sëriñ bi santé kër Touba bi mu nekkoon lu mat kilomètre ñun ñëpp ci jaaxle ci ba am ñu ñëw di ko wax ne ko xanaa di nga seng ni jëfee fi ba ak fi anam toll sëñ euh, Cheikh Ibrahima Faty Ngirane néewuma xawma seng waaye yéen itam xamu leen sëñ Tuubaa ndax ñaawoon nañ dem ci sëriñ bi mu soppi leen liggéey ndax boo dajaloon xaalis bi guerre bi dafa am ci réew yi ñëwatu kon dara amatu moo la ko néewuma xawma seng de waaye mu itam xamu leen sëriñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa du santaane mu ko dul am te du ma sant mu ko dul def laa ilaaha illallaah Serigne Saliou Mbacké daal dafa daan nekk lu bari di wax ne boo ko Cheikh Ibrahima Fall liggéey liggéey na ko ba mu liggéey bépp lu ci na ay tontu des muy seng yaag tontu yaag lépp ay tontu kon mooy loolu loolu mooy liggéey Serigne Touba. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax ne Serigne Touba liggéey ko yomb na ndax day féetewoo coono ba bàyyi asal kon nag sant leen bu te ñaan li ngeen yéen lépp daal yàlla leen di jëfiñ tubaab gàtt sëriñ bi leen di sant leen gërëm di leen wax ne lam leen waxoon rek na ngeen xam ne yitte mooy di am solo te yàlla defal leen kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah